moo ko jiite. Mm-hmm. di dañu ne woon nañu jéem a toog ak état bi. benn moment sax bi Mamadou Ibra Kane demandé audience. Mm-hmm. Euh, pendant plusieurs fois amu ci amu ci suite amu ci suivi dafa taxaw. ba nga xam ne après y a eu une rencontre seetlu nga ko bu cap amoon ak vraiment les acteurs de la presse ñu taxaw daal di génne communiqué. Mm. loolu daal di newaat nag dañuy woo état bi si négociation ak waxtaan. parce que dialogue situation bi presse bi nekk loolu rek moo ko mën a dindi. Mm. malheureusement bon i a pas eu de suite par rapport à ces appels incessants finalement donc il fallait que ñu marquer un peu euh, notre volonté à. wale li ñu li ñu metti parce que euh, gis-gis bi mooy que ni impression bi ñu am. mooy que ni presse euh, dafa toll foo xam ni Sénégal avec autorités yi nouvelles autorités yi nga xam ni seq nañu ñoom euh, gisuñu ñu yombale ñu dara. Mm-hmm. waaw maanaam dañoo considéré comme des ennemis ou adversaires. bu mm-hmm. bañ a yàgg ci ennemis. comme comme ay adversaires. Mm-hmm. te je crois que loolu bokk na ci li nga xamee ni. indi na problème entre pouvoir bi ak parce que mm-hmm. dans un premier temps ton bi nga xam ni ñoom autorités yi ñu ngi koy utiliser maa ngi gis léegi sax ci euh, communiqué conseil des ministres. Euh, bi nga am propos yu le président Diomaye en tout cas bind conseil des ministres. Mm. ma gis benn sénégalais bind ne pour la première fois. Mm. on a constaté te kooku xàmmewuma ko ci presse bi peut-être que journaliste également. Mm. c'est la première fois ñuy gis. les autorités utilisent les termes dialogue. négociation waxtaan. quand elles parlent. de la presse. C'est ça. Je crois que man de en tout cas personnellement li ma njëkk a frustré. c'était ça quand j'entends le premier ministre doon wax si yeneen secteur d'activité yi. parce que presse ak nekk fi. c'est ça. il y a d'autres activités il y a les opérateurs économiques il y a même mais buy wax ak ñoom toujours damay gis benn benn volonté boo xam ni de trouver des consensus ak ñoom. mais ma gis ni bu ñuy wax ci presse toujours c'est un ton agressif virulent. ñoo xam ne dañoo jóg pour yàq bi respecté wu ñu démocratie respecté donc je crois que loolu dafa mel ni bunt yëpp porte yëpp dañ ko fermé. Mm-hmm. ba nga xam ne en un moment donné ba pare nag bëgguñoo booleek askan bi. Mm. Euh, li ñuy booleek askan bi mooy que ni di wax ni presse bi dañoo bañ a fay impôt. c'est ça loolu dinañ ci ñëw dencal ma loolu dinañ ci ñëw gën ko yaatal ndax. bokk na ci li biaisé communication bi. journée de la presse bi man je trouve que. Hmm. quand même gërëm la presse. dans son ça la presse internationale en a parlé. vingt ans la ñu toog amuñu journée de la presse journée sans presse plutôt euh, ñu ñëw ba toll ci moment yi dundaat ko est-ce que par hasard du du échec venant de nos de nos autorités. de, nos autorités bien sûr. Hmm. parce que dama nit ñi dañoo amatul nit ki nag boo ko bëggee rey nag même mala boo ko tëree ba ko rey dina wequ mhm. waxatuma la nag ay journaliste nga xam ne seen liggéey mooy wax mooy génn xibaar mhm. mooy tas xibaar nga ni leen yéen kat dañ leen di liquider dañ leen di rey parce que man noonu laa gisee mhm. la volonté de l'État face à la presse donc de telle sorte que bi journée boobu amee mais c'est une réussite totale absolument une réussite totale parce que boo xoolee titres yi nga xam ne ñoo génn pour parler quand même des des quotidiens te ci ñi génn gis nañu leen boo xoolee si kees ki ay deux wala trois yoo xam ni ñoo génn par rapport à tous ceux qui publiaient euh, euh, si si journaux yi lool fa ñu gis ni également des des chaînes de télévision ak des rajo comme Sen TV ah Zik FM comme euh, le groupe Futur Média comme également Sud comme comme ñeneen daal di taxaw ne génnuñu en tout cas wax ñu ba gis ñu leen. Hmm. loolu man je crois que. très bien loolu wane na ni. c'est une c'est une réussite maintenant nag à chaque fois il n'est pas question te xaaruma ko sax ci lu mën a am que ñépp àndandoo ci xeex bi am na ñoo xam ni mais ñooñu man du ma leen xalab du ma leen xalab hmm. hmm. dama ni euh, bu ñuy xeex parce que liir naa Mamadou Oban Ndiaye ah bon témoin euh, moom nee na il n'a pas été associé c'est ça si waxtaan bi nga xam ne am na man même personnellement man woowuñu ma dama dama tuddee gis bon après nag on m'a parlé de réunion et de tout ça. Mm. mais je crois que li ëppoon doole pour man l' essentiel mooy que ni presse bi jóg. daal di ak autorité yi nga xam ne dañuy faj. ni ko waxee le président de la République en conseil des ministres il a parlé de dialogue waxtaan ouverture ak lu mel noonu moo di day patronat bi bind nañ benn yoon ñaari yoon ñetti yoon amuñu réponse euh, venant justement euh, du du du président de la République ne dañu bëgg kon ñu rencontrer euh, le président pour xool yan yoon la jaar pour euh, euh, andi ay euh, solution par rapport li ñu dund mais amuñu réponse le fait que loolu ñu dund ko ñoom patronat bi est-ce que gënul tax ñu tàbbi wala ñu yegg si fi ñu yegg et en plus dañoo recevoir jeunes reporters yi. c'est ça. xam nga loolu man j'en ai parlé avec Migui Marème woo naa ko di ko di ko féliciter. si parce que c'est toujours important que benn partie de la presse demande euh, en tout cas des structures de presse des journalistes euh, soient par le président de la République ma loolu c'est une excellente mais euh, je lui ai dit que également il faut éviter que ñu leen di utiliser dans le combat ñoom bi nga xam ni moom la ñuy def avec les patrons de presse parce que yow recevoir les jeunes reporters c'est important mais di leen wax ni yen kat seen patron yi jël di liggéeyloo na ngeen xam ni ñi ngi leen di exploiter que en gros Euh, c'est ça qui est sorti dans les euh, dans dans le discours de, de du président Diomaye mm. que dañuy utiliser reflet gis nga dem nañu sax ba nga xam ni les autorités du utiliser des termes yoo xam ni naan tàgge yi sax dañ koy jël mm. xam nga loolu c'est c'est fait sciemment maanaam xaalisu tàgge bi sax dañ koy jël war koo reverser reverser il faut que Mohamed il faut que ça soit clair mm. gis nga waxuma sax ni léegi je crois que sénégalais xam nañ ni amul benn patron de presse benn structure de presse bu taxaw ne du fay impôt. Mm-hmm. loolu il faut que sénégalais ñuy déglu daal di xam loolu mu leer. Mm-hmm. c'est-à-dire que la presse les entreprises de presse ont eu droit à des soutiens à des appuis de la part des gouvernements euh, précédents que ça soit avec Ablaye Wade que ça soit avec Macky Sall. Mm-hmm. heure boo xamee ne metti na si ñoom. dañuy woo waxtaan ñu xool ni kat impôt bi métti na parce que koo xam ni da nga am problème pour fay ay salaire mhm. ñu bëgg la fayloo impôt parfois ñaar te situation bi ni ma ko comprendre mooy gouvernement bi dañu nañu yéen salaire yi ngeen di fay teg leen ko fële fay leen impôt mhm. parce que bala ngay reverser da ngay toog ñoo xam ne am nañu trois mois derrière. c'est le message véhiculé ah. que que gars yi duñu fay. non non fay. ba pare bëgg ñoo wax ni du ñu reverser. Mhm. duñu reversé sénégalais lambda bi ngay dajal sax dafa ne boo bu tasee yow danaa non dam leen fay. waaw non loolu. loolu ñi koy wax le sénégalais lambda mi ngi déglu di xool lan la ci Mohamed di wax lan la ci Fatou di wax lan la ci Babacar di wax le sénégalais lambda ñooñu mooy ñi ànd ak ñoom. nga xam ni c'est dans la manipulation aussi lañ leen xamee dans la plupart du temps. Mhm. na wax faisons disons les choses. telles alors ba Babacar mais non c'est c'est exactement le problème parce que on entend impôt dañu dégg également contrat yi nga xamante ne. yenn ci ay euh, organe de presse ou maison de de presse dañu ko signé woon ak li nga xam ne mooy yenn direction ou yenn ministère te te ñu dagg ko entre autres. mais non li Sénégalais di comprendre moom mooy. voilà yi. les patrons de presse ñu ko contrat yi ñu dagg moom moo tax wala wala dafa beneen. non am na ñoo xam ni. dañoo am arriéré de paiement d' impôt. xam nga bi ñu xayma somme bi yóbbu yóbbu ko bàyyi quarante milliards. Mhm. et c' est ça d' ailleurs ce qui ce qui est surprenant. parce que les médias d' état maanaam ñi xamul média d' état mooy Soleil. APS RTS.